لولا الجناح مني كثير كنت في العالي للعجاز أطير ويقيني بأحمد جبر كسري كل كسر بأحمد مجبور كوكوي سيد الخلق موي صفوة الحق شمس الأفق هدى البصير النذير وعض أنام أنت الله تعالى وهو السميع البصير مصطفى يقن وعز الأنام أنت الله تعالى وهو السميع البصير mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki Sénégal mbokki bitim réew yéen ñi safoo suñu télé di télé Cherif Dabakh TV di télé bi leeral jamono di jël ndaw ñi teg leen ci diine ba ñu jub di fàttali mag ñi li borombi bi subhaanahu bëgg ci xeet wi tey ñoom ñoo jóge fële ca géejawaay ñëw fii seet ci sëñ kër Gueye di ku yàlla baaxal di ndaw di borom pas-pas di borom itte ci xam-xam ñu seet si woon ko ngir bu waxtaan ak moom ci tomb yi nga xam ni bari na lool luñ koy gis fan yi ndaw ñëpp rii uti ko ñuy waxtaan ak moom bëgg mu gindi ñu ci muy ilmul ñu ñëwoon seet ko tey pour mu am ay tomb yu ñu ci leeralal balaa dara xew dañ koy nuyu ba pare. bàyyi ko mu nuyoog mbooloo mi nuyoog senegal gépp ñu laaj ko tomb par tomb mu tontu ci loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Babacar mbokki Chérif ñoo ñëwoon doon set ci tey di la nuyu bu baax Guèye. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla yàlla na nu yàlla boole jéggal ñu ngi juital ci nuyoo bi sunu kilifa yi nga xam ni moom lañuy ñu yàlla booleel di ndokkeel ñëpp ñu ngi lay nuyu Moustapha di kontaan bu baax a baax ci am daax yi nga xamante ni yëkkati nga ko fi ñu ngi nuyu ñi nga xam ni sunuy mbokk taalibe lañ sunu mbokk xadara lañ mooy Chérif Dabakh TV ndax Serigne Babacar Gueye ak Tidiane ku ko dégg di nga xam ni moom njabootu Pape Chérif ay dara la ñu ngi nuyu senegal yëpp ñu ngi nuyu ñi nga xamante ni alhamdulilah ñoom lañu yàlla booleel ci wàllu liggéey ñu ngi nuyu sunu wayjur yi ñu ngi nuyu sunu mag ñi ñu ngi nuyu sunu rakk yi ñu ngi nuyu képp koo xam ni daal. sunu kàddu mi ngi jote ci yaw rek ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ Babacar tey dafa am luñ bëggoon nga leeralal ñu ko ci wàllu ilmul asraar tomb biñ ciy jëkk laaj nag mooy tomb bi ndaw ñépp di waxantoo seen biir néeg yi di ko xumtoo te mooy ilmu nujum lañ bëgg a xam lan mooy ilmu nujum sëriñ Babacar. jërëjëf Ndiaye ñu ngi ndokkeel bu baax Moustapha di wax alhamdulilahi waaw ilmul asraar nag su nu ko waxee rek xel yëpp dafay am fu muy dem ndax boroom taxal bayaan ba muy jàngale dafa wax ni xam liman qad allamal asraara bi fadlihi ibaadahul abraar mu ne mi ngi sant yàlla moom mi nga xamante ni qad allamal asraara bi fadlihi ibaadahul abraar maanaam jaam yi baax yi kase ñoom ñoo xéntewoo xam-xam boobu loolu moo waral xasanaatul abraar sayyiaatul muqarrabiina soo demee ba jege yàlla nag bunt bi benn pàcc la rek pour jege yàlla mais boo demee ba jege yàlla ci leneen ngay nekk ilmu nujuum nag suñ ko waxee loolu mooy ndey xam-xamu asraar ndax nit ki mënoo koo yokk wala nga fal ko wala nga wàññi ko wala nga folli ko wala nga yokk ko ci wàllu àdduna ci mbir mu mu mën a doon te xamoo wàllu ilmul nujum ilmul nujum nag suñu ko waxee dafa tënku ci fukki matière ak ñaar góor gi nga xam ne alhamdulilah moo ñu jàngal xam-xamu ilmul nujum ñu naan ko alaaji baara euh, euh, baara ndaw góor gi ñuy wax baytaala sàmb daana wax naan fukki nit ak ñaar kese la yàlla bind hmm. wallaay fukki nit ak ñaar la yàlla bind ba ci baatinu xaqiiqa tariqa bi fukki fukk ak ñaar la baatinu faatixatul kitaab fukk ak ñaar la kon fukk ak ñaar lu am njëriñ la yàlla wax na ko ci alxuraan ci niti yonte yàlla Muusaa ba ñuy naan ca seen ndox mooma mu ne leen ñett fukki sewnde ak ñaar ñoo fi nekk sewnde yooyu ba léegi moo fi nekk di donnante rek ilmu nujuum nag dafa tënku ci fukki biddiw ak ñaar mais li yàlla dogal mooy juróom-ñaari biddiw yi daf ci am juróomi biddiw yoo xam ni dañoo seex biddiw yi zuhal la nga xamante ni mooy quarante cinq moo gën a tuuti ci biddiw yi mais moo ci ëpp doole ndax moo ci gën a leer moom zuhal waaw moom boo jëlee zuhal mooy mooy limu maam aadama quarante cinq mareex biddiw bi ñuy wax mustara biddiw bu ñuy wax euh, euh, samsu biddiw bi ñuy wax xamar biddiw bi ñuy wax euh, zuhratu biddiw yooyu yàlla daf ko tënk ci biir vingt quatre heures sur 24 yi nga xam ni ñoom ñooy weccente par 12 heures de temps waxtu wi di tuxu bis yi di tuxu at mi di tuxu moo tax xam-xamu asraar suñ ko mënee tënk dañuy wax ni baatinu baatin bi ilmu nujum la. daal kenn xanaa ngay def ay xuraafaat. wala nga yor musu koro ah, te loola damay wax ni ndax xam-xamu asraar dafa tënku ci ay matières yu bari ndax am na ñoo xam ni defuñu asraar sixru la ñuy def sixr maanaam mooy njabar te sixr dafa am ay façons am na sixrul labyad am sixrul laxmar am sixrul laswat mooy ñi nga xamante ni moom nga dégg musu koro boobu ñuy wax naan dañ koy nàndal ñii di nàndal li ñu yor deret yor ay xàmb ñii di nàndal sàngara ñii di nàndal meew mais yooyu yëpp walla yuflixu saaxiru xaysu ataala yàlla wax ku nekk ca loolu ba ñëw doo mucc de xam-xamu asraar nag loolu baatin bi suñ ko waxee xam-xami alxuraan la ndax yàlla moo wax wa ahsa kulla shay'in adadan lépp loo gis tënk naa ko ci ay chiffres te xam-xamu biddiw yooyu yàlla dafa wax ni inna iddata suhuri indallahi isnaat asara sahran fukki weer ak ñaar pourquoi rek yàlla tëb wax fukki weer ak ñaar dafa am lu mu dëxañ ci weer yi am lu mu dëxañ ci bis yi am lu mu dëxañ ci waxtu yi léegi nag biddiw yooyu alhamdulilahi rabbil alamin daf ko seddale ci juróom-ñaari fan bis bu nekk ak biddiw bi nga xam ni moo ko moom soo demee bisu dimanche biddiw bi ñuy wax zuxuratu moo ko moom altine ñu xam asraan ñëpp xam nañ ne biddiw bi ñuy wax ah, samsu xamar moo ko moom talaata ñu ne biddiwu mareex moo ko moom alarba biddiwu ataaridu moo ko moom alxamis biddiwu mustara moo ko moom ajjuma biddiwu zuhal moo ko moom ah, biddiw yooyu nag sëriñ bu ko maîtriser su nee la danaa la wàcce danaa la wàcce bu nee la danaa la fal danaa la fal waaye ku ko maîtriser wul noo fal mënoo folli mënoo def mënoo dindi. kon xanaa sëriñ si faral di wax ni ñoom eh, di génn ci média yi naan diw dinaa ko fal diw dinaa ko fal te léeg-léeg seen wax di waroo xanaa ñoom kon dañoo xamul biddiw yooyu. waaw waaw loolu am na ci ñoo xamante ne alhamdulilah rabbil alamin ah, xam-xam yi dañoo wuute mais xam-xamu biddiw ku ko jàng ba maîtriser ko. chiffres yi ma la wax nga jàng ko ba maîtriser ko doo wax luy tuxu déedéet mënul nekk de mais bu su fekkee nag da ngaa tënku ci ay ay xuraafaat mën ngay wax luy tuxu ndax loolu li ko waral mooy xam-xam dañ koy tarbiya njaay ça va xam-xam dañ koy tarbiya dañ koy jàng dañ la ci yar bi ci des mooy mbirum asraar nekkul loo xamante ni da ngay tëb tëb rek ñu sol la ko wala dee dafa am yoon asraar moom dañ koy donn wala duñ ko doon ndax ndax léeg-léeg nga gis koo xamante ni mi ngi yor kiit yu baree baree baree baree baree bëri waaw ndax daf koy donn wala lu mu gës lu bu am ko laa bëgg a xam ndax dañ koy donn wala dañ koy gës waaw alhamdulilah asraar am na ñoo xam ne wax nañ ni dañ koy doon man d'accord naa sax ci côté boobu ndax mën nga judd fekk fi barke bi sa waajur yi bàyyi la fi ay kunnaas nga doon ko waaye nag dëgg dëgg xam-xam bi njaay dañ koy tarbiya dañ koy jàng ndax tey la sëñ Abbas Sall waxoon rek sa maanaam judd sa papa nekk sëriñ nga nekk sëriñ yomb na mu ne waaye demagoo ci hôpital yi ba gis médecin boo xamante ni dafay jóge ñu jël doomam remplacer ko te jàngul mënul nekk xam-xam bi faw nga jàng mën nga judd nag fekk sa baay jëmbatal na la turu yàlla ba li mu yor jeexital ci deretam mu faatu jox la loola nga continuer mbóot moomu barke booba des fi mais pour nga mën di def di dindi faw ñetti jotaay toog ba sa tubay xotteeku zikkar ba li nga yor bënn loolu la wala fii naan ñetti jotaay li ko waral nag mooy dangay ngay jaamu yàlla njalbeen nga am kilifa bu mat kilifa nga am ndigal ci doxal li ngay yor su ko defee nag yooyu yëpp bu dajaloo nga am cheikhul mursid sëriñ bu mat sëriñ mu yar la xamal la lim la war a xamal boobaa xam-xamu asraar dana la mën a jëriñ mais donn kase doyul déedéet man d'accorduma loolu donn kase doyul. maanaam kon ki dondu asraar dafay mel ni kon li yàlla wax ci alxuraan mu ne am na ñoo xamante si nii. ñi am xam-xam te jëfewuñ ko mi ngi mel ni mbaam mu safi téere kon ki dond lasraar gi te xamul ci lasraar gi dara kon kéetam yooyu daal loolu da koy jural wallaay man mii di wax ak yow am na bi may def sama tarbiya ci góor gu ñuy wax alaaji Baye Taala Sàmb bi may ñëw ci moom fekk na boobu dajale naa lu bari mais lakk naa ñetti kunnaas wallaay ñetti kunnaas yoo xam ni soose yi sëriñu soose yi ñoo ma ko jàngal man sonn ci ñàkk ci def ci sa alal mais baatinu baatin bi soo ko amee benn damay wax ni muntaxal bayaan rek ku ko jàng maîtriser ko bala neexee neexee bul yorati kayit te da ngay def di dindi. waaw yow suñu Babacar ilmu juum boobu may laaj yow foo ko gëstoo. alhamdulilah waa ilmu nujum nag alhamdulilah gëstu nañ ko ci ay eh, domaines yu yaatu yu yaatu yu yaatu mais yàlla dogal na góor baytaala sàmb moom moo ñu ci yee mais nag yàlla dogal na itam jaar nañ. ci école Serigne Hadi Touré ci sunu benn mag bu ñuy wax Abdou Aziz Dieng moom document yi ñu njëkk am ci xam-xam ilmu nujum moom moo ñu ko moom moo ñu ko jàngal te moom mi ngi ko jëlee ci fas Touré wallaay ñi ngi koy ndokkeel bu baax Serigne Abdou ñu ngi koy jox wàccu waayam alhamdulilah ilmu nujum nag yàlla def na tawféex su fekkee nit maîtriser na ko xam ko su la waxee bu subaa da nga dee sax fayal sa bor ndax du tuxu. déedéet du tuxu ndax biddi yi ci lay dox weer wii di wëlbatiku ñu naan tey la benn fan ñaari fan ci lay dox jant bii di sopparñiku ñuy mën a xam mi ngi soow di fenk ci lay dox ci ilmu nujum lépp nag mi ngi tënku ci wàllu chiffre mi ngi tënku ci xam-xam bi nga yaxanal ko bu maîtriser ko wax naa la léegi borom muntaxal bayaan ba muy jàngale dafa wax akkun bannun jaqun dattun xëqun zallun xamun taun loolu soo ko indee mooy baatinu ilmu nujum mooy baatinu asraar te loola mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ndax soo ko indee chiffre ko 860 la te 860 mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo tax asraar dëgg dëgg baatin dëgg dëgg mënoo cee génne alxuraan mënoo koo génne ci islaam ndax ci biir lislaam la nekk loolu mooy ilmu nujum waaw sëriñ Euh, bu ne baatin kenn mënu koo génne ci biir alquran te boo xamee ilmu nujum mën a xam luy xew kon la yaalamu laa yaalamu luy xew illa allah googu moom nuñ koy defa waaw comme yàlla dafa wax ni illaa liman irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min xalfihi rachadan mbirum xay bu loolu leneen la njaay loolu moo waral nga ji yi xew nii xew ñu ngi tolloon ci jamono joo xamante ni coow li bari na xibaar bu ne dégg nga ko mais ay faux xibaar rek ngay dégg loolu li ko waral mooy ñàkk a maîtriser xam-xam bi ak dugg tamit ci mbirum loo maîtriser wul waaye képp ku zikkar turu yàlla ba mu nangul la yàlla leeru tur wi baawaan ci yow leeru tur wi jeexital ci yow ah ku suufaat yi gane si la dana am sax loo xam ni soo ko waxee même su narul woon a am sax dana am waaw loolu mooy xam-xam. jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar kontaan nañ ñi li ñu indil ci ilmu nujum des na beneen tomb bu bëgg laaj bu bu bu bu bu intéressé réew mi ak ñi ñuy seetaan ñëpp ñi nekk ci réew ak bitim réew te mooy istixaara istixaara la ñuy moom nag naka lañ defam moom ci ilmu ci ilmul asraar. waaw alhamdulilah istixaar nag bari na ay façon istixaara am na ñoo xam ni lu am solo la ndax yonent bi nee na képp kuy def mbir mooy dugg nga tànn loo ca yàlla doo réccu ci benn mbir bu njëkk mag ñi dafa am ay joxoñ yuñ daan joxoñ ak ay tegtal yuñ daan tegtal mbirum listixaar fi lañ ko fekk mooy nit ki bari na ndax gaaf dafa am njaay oto waruwaay fas dafa am gaaf jigéen dafa am gaaf suuf kër dafa am gaaf bu njëkk doo dugg ci dara ndare sa waajur yi danañ la yebal na la demal nga waxtaan ak diw mu defal la listixaara xoolal la mbir mi fan lay mujj nga bëgg a takk soxna ñu ne la demal sa kër bàjjan mais demal ci sëriñ diw mu defal la listixaar nga xool diggante bi sëy bi ndax am na barke ndax am na njaboot ndax sëy bi am na ndaataange wala sëy bi lan moo ciy mujj ci ah, ban ban mujj la am wala nga bëgg a jënd suuf wala tool ñu ne la demal ñu xoolal la suuf si ba xam fan am na barke wala dëkkuwaay ba neex na wala naqari na listixaar nag bari na façon kenn ku nekk ak ni nga koy defee am na ñoo xamante ni ci ndox lañuy seete ci wàllu rawxaan am ñoo xam ni ilmu ramli la ñuy def muy wàllu tomb suuf nga xamante ne xam-xam boobu mu ngi bàyyeekoo ci yonent yàlla Idrissa yonent bi joxoñ ko ne képp ku tombeel biddiw bi nga xamante ni tomb wa Idrissa tomboon loo ca wax kenn du ko dindi am na ñoo xamante ni petaaw petaaw la ñuy defee petaaw euh, mbirum jinne la ñi nga xam ni dañoo am ay àndandoo wala ay rab ay wàllu xàmbak ak yooyu ñooñu ñoo koy def am ñoo xamante ni ci bàgg la kenn ku nekk ak rek ni ngay defee sa wàllu xam-xam listixaara waaye nag bi ci am solo mooy bi tegu ci sunna rek mooy bi nga xamante ni moom la yonent bi santaane waaye kenn ku nekk ak la nga doyloo ba tax nga ñëw ci nit diis ko sa soxla mu moom it mu tënku ci xam-xam ba mu amee pour jëfandikoo ko pour satisfaire la loolu rek moo ci am solo Ndiaye. waa li si listixaara ban moo ci tënk sunna ndax dégg naa léegi nga wax wàllu ramle ramle raka yaakaar naa ne mooy ñiy rëdd di def ay tomb boobu gis naa tamit ñenn nit ñu koy tere ci borom xam-xam yi. te dégg naa léegi nga ni mu ngi jóge ci yonent yàlla Idris waa ndax ab yonent dina def lu ñu tere. waaw booba nag ah, li ko waraloon mooy ah, ah, yonent yàlla Idrisa ñi ko yàlla boole loon dañoo gëmoon wàllu gisaane yàlla moo wan ko Jibril moo ko jàngal xam-xam boobu ci taatu tefes gi mu ko ko jàngalee ne ko demal ci seet boo dem boo ko xoolee rek nga xool buntu bi nga xamante ni as-saailu wal mas'uul la fa taxaw eh, nubuwatu dana fa feeñ. ba mu ko defee nubu woto feeñ fa mu jàngal ko doom bu nekk nu mu tudd kii aadama la tudd kii idrisa kii yunus ba mu yeggee ca aqibatul umur mu gis idrisa taxaw foofu mu nekkoon yàlla yàlla yónni na yonent bu ñuy wax idris bi mu ñëwee jàngal ko aw xeetam képp kum ko jàngal nga tomb ko nga gis ni buntu nubu wotu baabu nubu wa idris moo fa taxaw am na nag ñu koy inkaar ci wàllu xam-xam am na ñoo xam ne dañ koy inkaar mais su fekkee nit ki maîtriser na ilmu nujum maîtriser ram lu dëgg xam sarax ya muy àndal du ci wax luy tuxu ndax njaay yàlla wax ni ci alxuraan ah yéen ñëpp maa leen bind te yéen ñëpp yéen a ngi bàyyi ko ci aadama te aadama moom mi ngi ko bindee ci suuf kon suuf mooy cosaanal doomu aadama moo tax tomb suuf yooyu ñu ko xam maîtriser ko duñ ci wax luy deñ Euh, léegi ban moo ci sunna comme wax nga wax nga ñu wàll ram la ak fu mu jógee istixaara bi nga xam ne mooy sunna te mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def boobu mooy ban. waaw istixaara boobu mooy maanaam ni nga xamante ni ku ne ne mën nga ko defal sa bopp mooy ni ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wasallam jullit buy dugg ci dara mu def ci ñaan tànn loo yàlla nga julli ñaari ràkka yu sell ànd ak njàpp mu tooy nga def ko guddi. moo xam guddi altine la wala guddi alxamis nga jàng faatiha ci première raka bi raka bu njëkk bi jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun raka ñaareel bi nga jàng faatiha nga jàng sootul ixlaas soo paree nga sëlmal nga jàng salaatu ala bi téeméer nga julli ci yonent bi téeméer soo paree nga ñaan nga ñaan yàlla mbir mi ngay dugg bu su fekkee ni lu baax la am na ñaan guñ ci yaxanal mais jot temps bi du ko laaj bu dee mbir mi ngay dugg mbir mu baax la yàlla na la ko yàlla yéwénal su fekkee safaan la yàlla na la yàlla fànqaleeg moom juwee la laak moom nga bàyyi ak sa bopp yàlla te xool mbir yi fi muy mujj istixaara boobu kat moom la yonent bi jàngale. boobu noo koy boo noppee nan mi ngi nii wan nañ waaw am na ñoo xamante ni ci ay nelaw lañ leen koy wan mën nañ la ko wan ci nelaw yenn saa yi nga nga def ko tëdd ñu wan la ndox mu bari. nga xam ne li ngay lijjanti dana sotti wala ñu wan la maanaam naataange maanaam lu mel ni ah, lépp loo xam ne dafa nëtëx dafa verte nga xam ni nangu na bu fekkee ni wan nañ la safara nga xam ni affaire ba mu mus baaxul suñ la wanee itam maanaam loo xamante ni lu ñuul la nga xam ni kat mbir mi eh, teguwul amul gënul en même temps loolu képp ku ko def nga tànn loo yàlla nga julli ci yonent bi mbir mi itam balaa jub si rek yàlla dana la wan nan tasarufaat yi nan lay nan lay nan lay demee. waaw ba tey am na lu ma bëggoon laaj foofu ci listixaara dama mës a dégg ci benn kilifa mu ni booy listixaara guddi gi nga ko bëgg a defee wala bis bi nga ko bëgg defee doo ci lekk lu am dara ndax loolu wér na wala déet. waaw loolu moom leneen beneen dimension la maanaam am na kenn ku nekk bi ma la wax ni boobu mooy ahlu sunna te ñëpp d'accord nañ ahlu sunna wala ijma bi ñu dajaloo mais nag am na façon listixaar yoo xam ne loolu baatin la looy jëfandikoo la ay aaya yooyu jàng la wala tur wooy jàng amaana mën na loola mën na caa nekk mu ne ñu ne la kat pour nga def listixaara sàngam tur sàngam pour nga zikkar ko pour am kësfu wala ñu wan la dara loo xam ni lu leer luy leeral say mbir la loolu kat alhamdulilah bis bi nga ko defee doo ci lekk jën doo ci lekk ndawal doo ci lekk lépp lu am ruux doo ci naan soow loola boobu beneen domaine domaine la mais bi nga xamante ni daal moom may mën nañ ko joxe te mu nekk loo xam ni téere fuqaha u yëpp d'accord nañ ci boo fa demee di nga ko fa fekk mooy bii ma la wax ni ku julli ñaari ràkka nga yéene sellal ko ba mu sell alhamdulilahi rabbil alamin bu sellee rek nga julli ci yonent bi def salaatu ala nabi yàlla dana la wan mbir yi nga xamante ni moom ngay moom ngay gëstu fu muy mujj. ah jërëjëf suñu Babacar bi nga bi nga ñu leeralee eh, ilmu nujum leeral ñu istixaara ñetteelu tomb bi nag mooy bi nga nga xam ne man moom a jaaxal jaaxal sama moro yu bari te mooy lu ñuy tuddee xaatim te mooy rëdd yooyu mel ni ay karo léeg-léeg ñu am lu ñu dugal ci biir karo yi doo xam lu mu doon léegi moom xaatim moom lan la ak ci lan lay dox. waaw alhamdulilah xaatim mën nañ ko tënk maanaam moom lu kéemaane ngi noonu njaay mm-hmm. waaw lu kéemaan moytul ma sëñ kër si radiyallahu anhu yal na yàlla yokk leeram daana wax naan yàlla nañu yàlla musal ci xaatim bu jubul waxumalaak bu jub ba kon loola tegtal na ni su jubee mën na lu ne su jubee borom mën na lu nekk ndax tey jii mbir mu ñu dëxëñ la moo xamante ni yaatu na façon xaatim yi nag bari na am na musallatu Cheikh Seydi Max Seydi Maxtaar Kunta liggéey na fukki bunt ak ñaar yoo xamante ci xaatim yoo xamante ni sifatul kuntiya lañ koy wax imaamu Ghazali moo fi jiitu eh, liggéey na fukki bunt ak ñaar am na sax ëpp na fukki bunt ak ñaar imaamu Ghazali Euh, euh, euh, siixaam àgg na ci trente-six yoo xamante ni benn bu nekk iddexaal ba ah, boo demee Cheikh Sidi Ahmed Tidiane liggéey na xaatim ñu bu ñuy wax ala zeynabin soo demee ah, ah, bari na xaatim yi bari na yonte yàlla Souleymane sax yàlla joxoon na ko xaatim boo xamante ni mooy bàgg bi mu defoon ci jaaroom bi nga xamante ni bu ko takkee ci la pouvoir bi nguur gi di ñëw ci la pouvoir nubu wóotu bi ci la waari daat yi ak uh, mbir yi ci la yilifee jinne yi mbirum xaatim mbir mu doy waar la moom xaatim ndax chiffre la waaye nag li ma li nga doon njëkk di laaj mooy lu intéressant mooy faw nga xam ilmu nujum pour mën a xam xaatim waaw ndax ñoom ñaar sorewuñu ndax xaatim dafa am ilmu tabia dafa am ilmu naf tey jii booy fal nit fi nga ko war a jaar bokkut ak soo koy xeex ak bunt yi nga xam ni yow mi koy xeex war nga koo moytu ba soo liggéeyee ba pare du ëpp du du wëlbatikuwaat ci yow. loolu xam-xam bu ñuy jàngale la moo tax mag ñi dañ la daan giñloo bu ñu lay jàngal mu sàllas ne la giñal ci yàlla ni doo ci xeex ku bokk ci sama askan doo ci xeex ku sant sama sant ndax dafa mën a fal dafa mën a folli njaay xoolal benn aaya alxuraan inna haada la rizquna ma lahu min nafadin 1436 wala 1437 nga jël ko dar bu ko 129 mu jox la ñaata ci lim nga nga dugal ko ci murabbaaw jox ko nit ki mu sangoo ko force bu koy jëfandikoo day am wërsëg moom xaatim moom bari na ay murabba mooy lan mooy mooy ñeenti kër yi. waaw ñe murabba moo topp ci musallas. musallas mooy ñetti kër. waaw ñetti kër baatinu baatin bi ci maam aadama la ko yàlla wàcce woon muy aji hazata imaam Ghazali moo ko mottali moom mufradaat yi ak moo fi nekkoon ak muzawijaat yi bi mu ñëwee moom moo ko yokk yàlla def tawféex boo jàngee musallas ba maîtriser ko nga jàng murabbaaw soo jàngee murabbaaw ba maîtriser ko nga jàng mu xamas xam yooyu sax léegi nit ñi jàngatuñ ko ndax jamono laajatu ko te ñoom ñëpp musallas moo ci ëpp doole. waaw léegi ñi nga xam ne seen xaat yi moom kamaatara lañ koy def nag. waa loolu xaru la rek loolu moom ku koy def mooy yaa ngi xaru rek. mooy ki nga xamante ni dafa fekk ay médicaments yu tegee te amul suivi médecin mu jël ko di ko naan xam nga lu ne ko ci fekk en même temps effet secondaire yi muy def loolu xaru la mais mbirum xaatim ku ko jàng maîtriser ko. doo ko fowe doo ko fowe mbirum xaatim euh, mbir mu kéemaane la damay wax ni sëriñ bu nekk balaa ngaa góor lum gàtt gàtt 49 xaatim di nga ko maîtriser ndax musallas bi musallas bii rek 36 portes yi di ko jàng ba fëxmu ko hmm? waaw nga doo ko jàng mu rabaw jàng mu xamas jàng juróom benn kër jàng mu sabba te mu moom moo gën a siiw sax ndax sëriñ siy faj yëpp ci musabaxu la ñuy fajee musabax Souleymane. musabax mooy musabax mooy bi nga xamante ni juróom-ñaari kër la mais kër bu nekk dafa am lu cay dugg loo xam ni dafay composé wu ak weer yi dafay composé wu ak biddiw yi. dafay composé wu ak rawxaan yi nga xam ni ñooy rawxaan yi nga xam ni ñoo taxaw ci bis bi dafay composé wu itam ak seeni xuddaam yooyu yëpp bu tënkoon ak ci benn xaatim ñu ne kii mooy xaatimu Suleymaan mais moom xaatim daal ci ci ci ci gàttal moom loolu beneen dimension la mënuñu ko leeral ba mu leer ndax am na ci loo xam ni soo ko leeraloon tey jii dina am ay kër yoo tooñ ndax ci lañu toog mu samp seen nguur ci xaatim ci am na ci kër yoo xam ni fii moo samp seen nguur soo ko leeraloon ba leer di nga tooñ ay kër moo tax duñ ci mën a xóotal dara mais moytul ma ku maîtriser xaatim su la bëggee fal fal la mais bu la bëggee folli folli la bu la bëggee xeex xeex la. waa ndax xaatim moom amoo sañ-sañu ni nga gisee kéet gi noonu rek nga topp ci noonu di bind kër gu nekk la fa nekk nga dugal ko noonu wala kër gu nekk daa am lu muy duggee. ah Ndiaye waatul buyuta min abwaabiha kër sax. boo fay dugg ci bunt bi ngay jaar boo xëyee tëb tëb jaar ci fenêtre bi borom kër gi lu mu lay miin miin miin mën na leen sa waay li ngay def wóorul waaw mën na nekk mën nga am xaatim bu jub. nga waaw mën na nekk man mais mais daal li ma gën a li may gën a soññee daal mooy ku ci ak kum mën a doon sunu mbokk daara yi taalibe yi sëriñ asraar yeeg ñëpp ku ko ciy def daal na ko xam na ko maîtriser ndax walay sa jaahilu shay'in musliman alima ki réere mbir ak ki ko xam duñu yem duñu yem de te mbir mi xam la mbir mi xam la détails yi nga gis yëpp mu xew sëriñ si di wax muy fausé ñuy ñaan muy raté ñàkk maîtriser mbir mi la rek waaye mbir mi soo ko maîtriser soo nee diw mooy falu mooy falu boo nee diw mooy foleeku mooy folleeku ndax sa correspondant tabia ak sa correspondant siifa dana tolloo ak correspondant xëybu ñaari bu ko defee du wax ji du safaanoo waaye nag su fekkee danga tënku ci ay xuraafaat nga tënku itam ci ay eh, musukoro yooyu nàndal ah, ah, yàlla wax na yulquuna sama wa aksaruhum kaadib ñoo xam ni dañ lay xibaar quatre-vingt-cinq xibaar cent xibaar fukki xibaar ak ñaar téeméeri xibaar mu ne waaye nag juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent yëpp ay nax la léegi nag benn bi ci dëgg nan nga koy xàmmee ci juróom-ñeent moo tax affaire bi daal faw nga am kilifa faw nga am ndigal faw mu tegu ci xam-xam. waaw sëriñ bi euh, ba tey am na lu ma bëggoon laaj foofu la may dégg léeg-léeg ñuy wax musalasul xazaal yi am ñu naan musalasul kunti yu kon musalas yi daal dafa mel ni dafa am ñu ko liggéey ñu bokkul. Mhm. ndax ñaar yooyu rek ñoom wala am na yeneen musalas yu ma xamul. déedéet bari na musalas yi bari na musalasu tijaan ya am na sax yoo xam ne tarixa tijaan moom la ñuy liggéey. Cheikh Tidiane moom la jàngaloon Ibnul Arabi Damraawi nga xam ni bi mu faatoo la ko soppi dugal ko ci latif mais baatin bu njëkk ba bu ko mosaan a rëdd bu bu ci xutb bi bu zik buñ ko boo sikkaree fukki per ak ñaar rek génn. si masala si Tidiane baatin bu njëkk ba. soo zikkaree fukki per ak ñaar wurus génn ci baytu xaal bi mais bi euh, damraawiya nelawee ci la ko yonent bi neen na ko soppi def ko ci lati ba léegi nit ñi ñi ko amee ci tarixa bi am ci ndigal suñ ci defoon million tey buñ ko sikkaree ñetti fan am million noonu la musalasu musalasu kuntiya say Cheikh Seydi Maxtaaril kuntiya moo ko liggéey imaam Ghazali musal am na musalasu daamus boo xamante ni Euh, sëriñ si nga xamante ne nañ ma baal euh, euh, sëriñ ñi nga xam ni dañuy làkk làkkkat yi ñoom ñoo ëpp liñ koy liggéey ndax moom bañu dara. mooy daamus mooy daamus. xanaa kon mooy xam-xam bu ñuul bi. boobu mooy xam musalas moom bañu dara moom boobu moom boobu moom bañu boo ko maîtriser nga jàng ko bañu dara te du la yàq du la tee ngay am xaalis du la tee ngay sa mbir di dox. du la yàqal dara itam soo ci doxee doxalee wàllu mbooloo mu dox boo ci doxalee wàllu wërsëg mu dox boo ci falee mu fol boo ci foleeku mu folleeku te moom du la yàqal nangu na lépp. maanaam ko léeg-léeg sëriñ si sëriñ si ngay gis léegi ñu xaw a doy waar léegi lool sol mbubbum sëriñ ba booy gisee. li sama benn wayjur doon wax ne am na ko xam boo waxee yow nga bëgg koo ñaan werd waaye bu jëfee nga yaakaar ne Firawna moo jëf xanaa kon ñenn ci sëriñ si xanaa ah kon ñooñu loolu la ñuy liggéey. bari na ci nag bari na ci am na ñoo xamante ni alhamdulilah rabbil alamin boo ko maîtriser loolu yoon moom xeet la ci zulmaaniya waaw xeet la ci zulmaaniya boo ko maîtriser moom mën na mën maanaam boo ko toppee sax mën naa ñaawal sa lislaam mën naa ñaawal sa lislaam ndax. yàlla def na ci tawfeex ijaaba ba gaaw na gaaw goo xam ni trois heures de temps rek. moom daamus moom daamu ñetti ñetti waxtu rek mu wane melokaanam. daamus daamus boo ko am boo ko maîtriser ñetti waxtu rek mu wane melokaanam léegi nag ku yàlla dimbali woon nga am sëriñ loolu nag lañuy doyee sëriñ la ñuy doyee kilifa. ndax yashabu cheikhan aarifa al masaliki yaqiihi fi tariqihi al mahaliki kilifa bu mat kilifa. li muy lim lay jariñ mooy yooyu nga xamante ni ku ca dugg mu alku yooyu lay fexe ba dindi ko su ko defee nag musallas moom beneen affaire la Cheikh di Mokhtar Kunta liggéey na fukki bunt ak ñaar ci musallas soo demee dañ ci ci kër gi nga xam ne boo demee fii Njaasaan xam nañ ko ñu ko xam dëgg ah, fukki waxtu ñaar ñu def li ñu bëgg a def Ah, boo demee imaam Ghazali liggéey na ah, fukki ña fanweeri buntu ak juróom-benn ah, boo demee wulli bu feeñ jamono not jamono yàlla dana la booleeg musallas boo xamante dana la xamal musallas boo xamante ni ci moom ngay yenn yi nga xamante ni mënul ñàkk ci wàllu àdduna ci nga koy doxale macha allah macha allah suñu Babacar yàlla na yàlla fay la euh, ñu fàttali leen Cherif Dabakh TV. ñoom ñoo ñëwoon doon la seet si am na luy waaj xew nag te mooy ay tabaski bii di waaj ñëw ah looy may ndaw ñi ak kilifa yi yoo xam lu ñu ko jëfandikoo eh, wàllu tabaski boog lépp yomb. waaw alhamdulilah jërëjëf ñu ngi ndokkeel ñëpp di kontaan ci ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant waa tele bi di sant sunu kilifa nga xam ne alhamdulilah. lu ñu am gannaaw yàlla waajur yi moom la ndax bañ koy xam fukki at juróom benn rek lañu ñu am mu di ñu teete di ñu yar di ñu toppatoo ba lépp lu war a defal doomu soxna mu defal ñu ko ñu ngi sant bu baax di ko jox wàcc waayam di ko ñaan yàlla may ko gudd fan ak wér gi yaram ñu ngi maye wàllu tabaski bi loolu amul benn jafe-jafe wa fadaynaahu bi difhin adimin ku koy liggéey doo ñàkk xar te ku ko liggéey yàlla dana la jàppandal wërsëg woo mën a sàmmee sa diine ak sa ngor ba programme bi bu jàllee itam yàlla dana la defal tawféex. waaw dañ koy liggéeyee waaw dañ koy zikkar rek. dañ koy zikkar rek soo mënee 66 baax na soo mënee Jeysun baax na. Jeysun mooy lan Jeysun mooy ku ko liggéey yàlla dana la defal tawféex ñu ngi ndokkeel ñëpp di wax ni ñu ngi lancé message nañu wàññi wax ji te liggéey nañu wàññi wax ji te liggéey nañu bàññi tooñ tooñ baaxul. ndax yàlla wax na ci alxuraan kii tooñ du mucc kilifa yi ñu yàlla booleel nañ leen wekk warmaal leen léegi da ngay gis ci internet bi saaga yi kilifa gu jóg ñu saaga la da ngay gis ku ne mu neex mu wax ku mu neexul mu wax yooyu daal ñu ngi ciy bàyyiloo xel ndaw ñi suñu sañoon senegal jàmm kese moo fi am lépp loo xam ni xam nañ ko mën nañ ko pour jàmm sax fi danañ ko def su ko defee nag ñu ngi wax nit ñi nañu dal nañu déggal sunu kilifa yi ndaw ñi nañu topp mag ñi mag ñi nañu yërëm ndaw ñi boroom xam-xam yi nañu leer laaye biir ci seen xam-xam te teg ko ci diine teg ko ci yar teg ko ci teggin nguur gi na na na na servir ñëpp na xam ni moom mooy bàyyi ñëpp na yërëme na jéggale ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci beneen fànn bi nañu jox teggin nañu doxal doxin wu rafet boo xamante ni ñun ñëpp Sénégal ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñi ngi ñaanal sunu kilifa diine yi nga xamante ni yàlla def na tawfiix ñooñu njaboote ci lislaam di jiital sunu sëriñ sunu kilifa sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan may ko wér xilaafa gi mu doon yàlla dëgëral ko may ko mu li mu ci bëgg liggéey mu liggéey ko ci ñu ngi ñaanal Cheikh Seydi Mouhamadul Bachir sëñ ah, Muntaxa Bachiru ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ñu ngi ñaanal Cheikh Ahmad Tidiane xalifa Medina Baye yàlla dëgëral ko ñu ngi ñaanal bépp xalifa boo xamante ni yaa ngi kennu lislaam bi di ñaan yàlla yàlla def ci Sénégal jàmm may ñu nawet bu barkeel ndox mi ñuy séenu yàlla na ak seeg jàmm réew mi yàlla na fi yàlla tuur taraanga yàlla na fi yàlla tuur sutura yàlla na fi yàlla tuur barke wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ah, jërëjëf suñu Babacar yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla dëgëral. waa Chérif Dabakh TV mbokk yëpp ñu ngi lay ziar di am kontante ak mbégte ci dalal la incha allahu taala dina àndaat ak yow ci yeneen jëmmi jamono nga leer leen ñu yeneen tomb ci xam-xamu ilmul asrar jërëjëf Guèye muy ku yàlla baaxal di borom xam-xam dëkk fii ci Fass Mbao di Serigne Babacar Guèye At-Tidiani muqaddam di ko nuyu baax di ko ziare mbokk yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.